la xew ca France ke ah, doy na waar de waaye tribune yéene kay ne kañu toogal ca Marseille day di consul ba waaw moom la ñuy tuumal de ne daa génne awraam ba ca mbedd ma i la ilaha illallah ma ne la Tamsir Faye moomee waaw dañu koo tegoon loxo de waaye mujj nañ koo bàyyi waaye nag moom Tamsir Faye day daal dina koy weddi daa xam le carrément ne policiers yi nekk ca Marseille goo kay dañoo raciste boo dëxante ci mbirum waaw dañoo bañ ko nit ñu ñuul ña grand place de en tout cas coow la bëri na ca Marseille googee de waaw Tamsir Faye day daa fas yéene nag dem kon ca kanamu procureur tooñ wala dañ koo tooñ victime ou coupable Tamsir Faye ne man kay dañ maa tooñ wàllum racisme la de waaye danaa porter plainte de sa jamono joo jaye Toussaint Manga ca kaso ba doomu Abdoulaye Wade ya kaay ne ca kaso nga xam ne de foofee la nekk léegi mu am fa kon weer laa ilaha waaye nag yëkkati na ay kaddu de ca biir ne gëmbam ne xam le semaine bii di ñëw ni le dana xiifal grève de la faim Toussaint Manga ne wàllum doole la injustice flagrante ña fa ci teg seen loxo gindi kon askanuk Sénégal gi lee et puis Macky Sall ci boppam man moom laay waxal na arrêté ñi nga xam ne kon moom la may yónnee mu may la damaa bëgg nag Macky Sall xam ne boo ko maak askan di xeet woowee ma ci ñooñu jënd ngir ma mën a moom sama bopp am liberté loolee na ko daay te jamono joojee Macky Sall woon Fatick Le Soleil yéene kaay ne ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom-benn ci ay milliards la ñu fas def kon te Fatick googee su ko conseil des ministres yi yaatal la de ñaari téeméer ak ñeen fukk juróom-benn ci ay milliards piir siin waaw Macky Sall day door na kon pikiir ba perfusé na kon Fatick président Macky Sall ci tribune yéene kaay ma ngay défendre de ci mbirum pinut bi la waaw nee na nañ ñu bàyyi ñu liggéey il faut qu'on nous laisse travailler Aminata Diallo ci la quotidien yéene kaay ne Macky du dem i la ilaha illallah <laughs> loolu la ñuy tere Macky du dem Macky n'ira nulle part eh député parti socialiste bi day nee na réew mi doxul feccak way dee lañ fi gis Macky Sall bu yeboo mu jël téeméeri ci ay milliards jox Fatick wala Kolda du dem non Macky du dem xoolal ma àll baa ngi ni yaa ngay kaas saas wi kay day gën a ñoom nguuru Macky Sall gi ñuy bëgg a rey ak couverture maladie universelle te yow amul centre de santé du poste de santé dara ba dara booloo jeex yow boo waree jóge ci benn village dox kon ay kilomètres yi kilomètres yëkkib saret ngir dem wasin am doom waaye yow couverture maladie universelle googee anamu Macky Sall daal li muy def fi nekk ni ay tournée rek lay def te loolee daa war jur dara waaye tournée mii du dara lu dul mbumbaay dëgg kese la dëkk bi doxul kon ak parti du samay kaddu dee que parti socialiste mën naa Sall candidat am ci élection présidentielle yi comme ni ko ñenn ñi di waxee Aminata Diallo ne loolee du ma sa am jamais Macky Sall mënta doon suñ candidat et puis loolu sax saaga la insulte la ci parti socialiste bu Léopold Sédar Senghor ak Abdou Diouf ñuy tànn Macky Sall ni candidat ma ne loolu saaga la ñun parti socialiste day danañu tànn Khalifa Sall laa la wax akam jom akam fit Aïssata Tall Sall nag man Aminata Diallo Aïssata sama tànta sama mbokk Haalpulaar la Khalifa bokk benn gis-gis division ñëw goneg parti socialiste gi di Aminata Diallo yamu ca ndaxte daal dinañ xam le carrément ne seen parti boobee am na ñoo xam ne mbel-mbel rek wax rek wax rek ak ñoo xam ne ne danoo dof ay xelu lambeer la ñu yor benn xel waaye buñ tànnee Khalifa Sall rek def ko candidat dof yeeg yëpp danañu wér réew mi quotidien ne ñi nga xam ne day ñoo ànd ak président Macky Sall nañ koy jàppale daal doy na waar aya bi mag satara kurus daa seddu lool lan moo tax ba ñi nga xam ne kon ñoom ñoo ànd ak bokk yaakaar gay waaw ñoom aji mbir gànkanute ñoom Zahra Iyane Thiam waaw ñoom dee nee nañu lenn lañ dong la ñu bëggal président Macky Sall mooy ñaareelu mandat très bien grand place de président de ba demee ca Gossas gay waaw gàttandu nañ ko comme nañuy gàttandoo buur laa la wax waaw waaw modèle bu Ibrahima Sall day ñoo jël kubba ci mobilisation maa la ko wax réew mi quotidien mouvement tous fa amanceur day pétition lañ nar a signaloo nag ca askanu banlieue bële délégué de Bocar Samba Dieye bëgg na ku ko gindi dee la tey moo yéene kaay ne ne Bocar Samba Dieye waaw attaqué na CBAO de mardi Italie waaw parce que ba kat daf koy laaj fukki milliards ak benn libération yéene kaay ne coowal góor jigéen yéen jàpp kon ca cité Aliou Sogé waaw la ca laxatu doona waar dañ leen fekk ñuy sangu ñoom ñëpp mardi Italie la ilaha illallah am dee ma sàmba na dee ci nan la police ba dajjee kon réseau boo bee leen a ñuy ñuy ala wax juróom-ñaar yëpp ay tailleur lañ tailleur machine tailleur dag ay tailleur allahu akbar dem na ci lamb je modlo ci tribune sox neena yekini bu ko neexee mu jàppale ma mom xarañ lo ci libération yene kay neena man dal préparé wuna bu baax ci wàllum wu bombardier gabari bombardier bi waw liggéey na ci bu baax a baax sax lu jëm nak ci walum ñi nga xamni kon dañuy wu di naan ay dom dañ leen di contrôler modlo ci le populaire neena duma nangu man kenn kuma contrôler ala wax dama bëgg mu leer fi ci lu jëm ci walum mystique yi xar fa fuufa xarañ lo ababakar mbay ci libération millions na dañ naan ay ñaari millions affaire yooyu waaw ma ne la dañ ciy dépensé kon lu ëpp ñaar fukki millions laa wax ci ay mbirum xar fa fu fa kese waaw waaw parce que làmb nag la moo ëmb ca boppam kon moo yaat te rëy <laughs> alaaji xar fa fu fa rek vingt millions tey xarañ loo non il faut nga wax sa koñ nag waa mbuur ñu pare vingt millions xon